solo ci li Jamra di def. yoo xam ne nii population bi voilà waaye waaye nag malheureusement boo nee rangu rek ñu ne ah, def ko si journaux yi ñetti fan juróomi fan yi di commandé. Mm-hmm. waali juróomi fan te yooyu. moo gën a ah, tuuti un dixième de nos activités. Ah, voilà alors mais terewul nag. Mm-hmm. comme que Jamra dafa tënku ci alxuraanul karim ak euh, sunnatul euh, sariatul muhammadiya ak sunnatul nabawi mm-hmm. te Seydina Mohamed ma wax ne jullit bi. ginnaaw boo matalee say juróomi ponk shahadaat waxtu wi juróom weer weeru koor joxe azaka ak aji màkk bu la ko sa poos ak sa wér-gu-yaram maye nee na liy mottali seen njullit mooy ñetti taxawaay yi ñu ne ko ban ak ban mu ne loo leen gis muy raam di ñëw te bu excès dana yàq jikko yi tilimal malaanul islaam nee na waajib la maanaam obligation la pour jullit bi nga jóg am ci benn ci ñetti taxawaay ñu ne ko ban ban mu ne d'abord na ci opposé wu ñu ne ko naka mu ne fi yeddi yi par l'action mm. bu jàppandiwul ñu ne ko naka mu ne fi lisaani yi nga alerté nga dénoncé su jàppandiwul mu ne fi xal bi naxar lu ko soxal ba yàlla xam ne danga nga néew doole waaye naxari na la mm. latti sax daan na faral di kaf naan fi xal bi dañ ko bàyyeek suñu maam yi màgget ba xubidaas mm. eh, nga xam ne mënuñu yore suñu bu ñu desee minimum

boobu coow yëpp dara amu gi 2005 Je remercie remercier sa Omar Cheikh Oumar Ndaw jamono yooyu moo doon directeur en chef du journal L'As nekk tey le directeur de publication de Les Échos Je suis def na ci liggéey bu am solo parvenir au même résultat que Djamra, Je suis saay yi doon dugg ci cimetière musulman bu Soumbédioune di faire tourner des films pornographiques homosexuels alors euh, Jamra liggéey na tam ci euh, la Biennale des Arts bu 2014 ñu avons utiliser des sites d'exposition di fa def promotion góor jigéen ñun ñoo ont xeex ak Mohamedou Bamba Ndiaye ak sa naataango Mamadou Gomis euh, le photographe reporter bu Walfadjiri ak Adama Mboup bu ànd sama jikko yi ñoo ko ba ñu ces sites d'exposition ñoo xeex itam ba ñu nous góor jigéen ya demoon Kaolack bés bu tedd bu mel ni guddi Mawludul Nabi ci bërëb suuf su tedd fo xam fa la Cheikh al Islam Baye baye Niass tedd ñu difa takki sey mm-hmm. ñu jappalen ñu ngi sargal le commissaire Bokar Bokar Li mm-hmm. momit def na ci taxaway bu rafet mm-hmm. alors porté nañu plainte tam ci togn ba nga xam fa la togn mën yam moy bu tedd bi te suñu borom wax ci suratul jinni wa anal masajida lillahi nee na sama neeg la goor jigen toin yi ci togn rek dem ba dugg fa profité ci corona bi parce que ci corona bi dañ tëjoon jàkk ji dugg fa di ko di fa sëy alors kon nag yooyu yëpp euh, ay firnde yu wane nii mosu ñun ñoo toog euh, ndax saay-saay yi bu ñu tàyyiwul ñun di ñu tàyyi waaw ba li ci mujjee moo di franc-maçon yi Jamra alerte na wax état bi na jël responsabilité ndax ñu ngi génne ay xale yi ci diine leen gëm loolu amul ti leen euh, xeetu gëm-gëmu seytaane

depuis dixième recréé en février 83 ça fait 38 ans ci loolu la ñuy dund beus mu né léeg nak ñu sét défaut ci yow pour yàq sa der si walu ndialo di la yónni ay tiaga ñu lay def des appels vidéo ci whatsapp yalla di la ci musal ñu fi yoni ay dof pour ñu corrompre la nañ la may auto yalla musal la ci yónnee fi ñeneen ñu kanasu naan pa lu mu wax sama kër lay ñëw ma di ko toggal suppu kañ ak i njaay soow <laughs> alors ba mu xamee li ko ciy fekk mu daw def vidéo di di di di jégalu alors donc euh, bi ci mujj punkalum góor jigéen boobu xeesal ba wex tàll bootee diine doomam a ngi fi Amérique di fi prostitué wu ma piégé ko nag ndeke xale bi mosul voyagé hmm. <laughs> la ma mosoon wax bu yàgg hmm. loolu la mu jëgam parce que lii laa séntu woon daal di dem sama page Facebook nag roñ fay photo xoolal gis nga xale bi toog ci saret bi doomam la daf ko jël sacrifier ko jox ko franc-maçon yi ñu xërëm relatif de mu remplacé ko waxi dof yow xam ne daal boobu euh, campagne électorale bu mille 2017 la woon dañu demoon euh, dem dans de Nioro ci région Kaolack euh, am oto bi mën ndax fi ñu war a dugg yëpp suuf la ñu luwee benn saret foofu na ay xale yi tuuti ñooy dawal saret yi quinze ans dix sept ans mu ne sama dom, alors mu jegi nag ñu waaw vidéo tontu ko ma ko jaru ko comme que fen wu mag ba nee sama dom, jëlal nii fay ak nit fukk fa ak juróom mu ne comme que fen wu mag boobu màbb na ndax xale bi mosul génn Sénégal waaw kon détails yi des yëpp jaru ko parce li tax ma laaj la loolu bi mm-hmm. euh, sa Abdou Latif Abdou Latif Hmm. quelque temps après dégg nañ ay écho comme dañoo saboté otoom que farmason yi ñoo ko faagaagal ak yooyu noonu hmm. peut-être rumeur là, mais yow yaa ko jege woon hmm. tey yow bi nga déggee loolu dan ban réaction nga si am waaw maag Ibader ñoo si bokkoon position parce que man je ne croyais pas te ba je ne crois pas à la thèse de l'État wax ne accident la Ibader qui était député parce que man je n'avais pas accès à l'Assemblée nationale waxoon dafa bëgg proposer une commission d'enquête parlementaire waye ñu bloqué ko alors motax man batay la thèse de l'accident libre na ci l'État est libre de dire que li moko ray moi aussi je suis libre en tant que citoyen de dire que gëmuma ko c'est tout waye du tere nak c'est une perte de temps liggéey Jamra day continuer alors fi mu nek ni fi may wax ak yow comme comme man je ne suis pas éternel imam Massamba n'est pas éternel imam mustafa imam Adama Niang ak ñeneen nous dañu créé un groupe WhatsApp Nous ngi former des jeunes amagum nañ 190 jeunes Ils ont différentes euh, commissions la am une commission communication ils sont déjà opérationnels moo tax keroog sa naataango bi ñuy wax nit dof te nekk wal A animé émission bi euh, euh, Black Label Je ca daan dem chaque année mais comme que c'est une émission un peu hip hop un peu jeune ma daal yabal à Biram Traoré waaw moom ci panel boobu la formé nañ c'est un c'est, master 2 en commerce international une tête bien faite moo demoon représenté ñu ci émission bi am na un xale Euh, c'est le coordonnateur de la cellule Jamra de Xombal ñu di ko euh, euh, Cheikh euh, Cheikh Ahmadou Bamba Faye moom tamit fan TV. Il may représenté à débats Fall TV ci ay débat yu am solo ci wàllu tolluwaayu askan wi euh, jikko yu yàqu yi et etc te bu yàggul itam moo représenté woon Jamra fii ci émission bi sa naataangoon di def daam qui euh, Mass Mboup mm-hmm. ñu di ko wax lii si dëkk bi mm-hmm. ci wàllu euh, roy dàq yi mm-hmm. ak complexe d'infériorité donc euh, on est en train de former des jeunes yoo xam commencé ñu ngi commencé jël dans place ci médias yi parce que il doit arriver quand même un moment et nous, puisqu'on n'est pas éternel nous commençons petit à petit à reculer Dites-le yi ñu continuer xeex bi et su boobaa ñu gërëm leen parce que dinañ ñu may occasion de prendre enfin un repos euh, des congés bien euh, un repos bien mérité après 38 ans de combat sans congé. Ah, alors euh, Mame Matar Gueye ngay waa Ndakaaru hmm. dëkk Dakar màggee Dakar hmm. yenn saa yi am na yenn combat yoo xamee ne que nii dina dem ba nga xeexal say doom hmm. tey combat yooyu noonu par exemple tey ak lu ñu mënti wax waali de près ou de l'air. sa doom la. Hmm. mu am ay combat yoo xam ne yaa ngi koy mëne loo xam ne ni yow islam nga koy liyal. Hmm. tey yow boo doon jox tey conseil Wally lan nga koy wax mooy conseil ba ma ko jotoon téléphone rek. Hmm. moom laay répété fii. ci sa plateforme bi. Euh, mooy ba ma solee t-shirt boobu ma woo yaay ji mu ne ma day nelaw waaye bu paree dana ràppale rappelé. ma rappelé ñu jàmm sant. ma ne ko. yi ngi ko sa single bu am solo bobu sa baye defone en 95 mune ma du rasoul ma ko wala ma ko bobu ya ngi am di sa baye mo sol dalam ñew ba ci siège yu Jamra fi ci 10 avenue Bourguiba fekk fa ngey sa dafa mëna ma ngi nek ci bureau bu ndaw à côté ak Latif ñu xamé pat muy wax ci am ñu muy waxal ci hall bi maag Latif ñu génn Latif tàllal

ku tedd ak ku mag ki mako jaglel euh fenn rek la yakar ne mën na fa def clip bi muy bërëb bu ñuy tuddé yalla té yeen seen chaise bi amna na benn daara alxuraan bu tudd fofu da la yak latif ne ko bul eggali bëgg nga yonent bi waye ñun duñu nangu nga gën ñoo goré duñu nangu nga gën ñoo bëgg yonent bi kon waxal lo bëgg ñu jël chaise bi yépp mettre ko à ta disposition nga tuddé sa clip magal sayidina bëggee sax xalé yi euh, classe yépp ñu may leen ko jox ne ëpp na def parce que bu ñuy tourner clip bi dama soxla ay xalé alors oustaz bi di wax ñuy répéter ci ci clip bi la donc bo duggé YouTube nga tapé Thione Seck espace Rasoul clip baa d'ailleurs nak d'ailleurs Thione am bu day ni mu ngi fay wax ben message mu ne Thione Seck el ramdan remercie l'ONG Jamra pour leur disponibilité etc cetera ma ne kóllëre moo dox suñu diggante ak sa baay kon sa baay musique boole wuñu ak moom Seydina Mohamed moo ñu boole waral ma woo ndax baat lañ ci yow nijaay lañ ci yow t-shirt bii nga soxla tooñ nga Sénégal ndax site internet góor jigéen yëpp ñu ngi lay sarg daa ne ay ndax yàlla ñu euh, euh, am percé Afrique de l'Ouest au Sénégal jëmm ji sol suñu ti rawatina da nga ko sol période boo xam ne euh, góor jigéen yëpp ñu ngi def seen gay bride en Espagne en Belgique en France et en Allemagne yow nee nga da ngay da nga doon màggal victoire Lions yi booy Magal victoire Lions yi contre Ouganda lu la tere sol maillot Lion bref euh, mu wax ak man ak franchise daal di que deug la ci mom du deug ci mom suma ma ci digganteem mak borom la mu daal wat ni bamukay sol xamul woon t-shirt bi bobu signification daal di jël engagement ne euh la même chose sac bi mu fi lancé won en janvier 2016 bobu tam kenn ñu ci ay plainte dama ko woowaat ñu def déclaration ci ginnaawam yedd ko ngir bàyyi sac bi d'abord ki nga xamné bok bokk na ci ñi lancé du ko bëgg diiné du ko bëggul l'islam bañ na ba boo demee ci page Facebook am man profité leeral benn faramaleen lañ leen di wax xama faramaleen bu kannasu yaa ngi waxal kenn wess loolu wóorul wa démal ci page Facebook am kenn wess moo ne j'ai conclu un pacte avec le diable wa nga bëgg ko weddil yamul ci lolu clipam mom moom kenn wees moo ne clip yëpp nak ca fin ba toujours day naan I sold my soul to the devil j'ai man kenn j'ai vendu mon âme au diable mooy sama ruu gi jaay naa ko Iblis kooku jar naa roy waaw moo taxoon ñu soñ ñu so kooku mooy suñu soññ waali bu njëkk alors yàlla dogal na ba mu ñibbisee ñu soññaat ko nee ko sa t bi sa saag bi xëy na jubluwuloo ci woon mais mu ngi indi fitna. les deux voies amul xale des choses. fa dóoroon dafa des ay mécanicien langal saak bi ñu ne leen des choses. la fitna la ndax fans, si kenn mënu leen reprocher dara xër seen xër rek am seen choses. par rapport ak seen idole bref mu def geste bu rafet ndax nit des ko mu des def lu baax des choses. koy gërëm am des choses. lu tax fait des choses. Il ko fait ndax lañ ko choses yemu ca mu dem grand théâtre ñun taxu ñu mu dem grand théâtre dafa tombeek mu programmé won de longue date ben concert mu daal profiter profité ci ubbiteg concert bi jël sac bi jël ben peeru ciseaux daggat ko 1000 morceaux nga yooyu yëpp masla la wayé le 12 juin concert bi ci grand théâtre euh ñaari punkalum feccakat di telli telli telli telli di fecc comme niko sa collègue euh, humoriste animateur bu Walfadjri Sanjogu di waxee nee na ba jamono de bàkkay ndaw rabin yeeg tànn bëri ñaari ponkal góor bu ñu feccee di tëlli tëlli bu ñu ñëwee ba jegeyante dañuy def dañ koy conclure ak ndaat saay wala ndaat tëll waaye ndaat fóonante ngeen bëgg nañ bàyyi loolu jàll daal mënuñu ko ndax bu jàlloon mais xale yi dañ koy def comme en Allemagne xam Allemagne goor jigen yi loxo de Goor goor wala alors nous euh, avons ñu daal di ci jóg saisir euh, voilà defuñu ko nak pour acharné contre qui que ce soit waaye acte bi même ñoom on dul ay goor jigen acte bi acte goor jigen la il dañu arrêté ko xalé yu bari yoo xam ku tuuti rek ñu def ko voilà nous rek la ñu profiter rappeler les vedettes du showbiz les vedettes médiatiques Nous avons ne am responsabilité bu vis-à-vis des jeunes ndax jeune de tàmm lu mu gis rek toujours je ma di citer l'exemple waxuma ko ndax li mu comme man Khalil Gaye, retraité de l'exemple te nekkoon RTS moo doon animé cette émission de jeunesse bi ñuy boulevard Khalil Gueye am na une grande marque multimilliardaire grande marque de cigarette sox loolu ma di ko tudd pour bañ leen defal publicité approché na ko ne ko waaw boulevard yi yaa koy def en studio mais il paraît que pendant l'été da nga koy externaliser waaw ñu bëggoon daal euh, signer yow contrat léegi sa fond fond de scène bi nga def nga ndim banderole def fa suñu cigarette bi ak marque euh ñu jox la un véhicule double la seule particularité que sur le flanc gauche le flanc droit dañ fay def ben bandeau publicitaire suñu cigarette mu rek la bu campagne à la million jox la mom bu ko ben way kat def kay xaliss mu di leen defal publicité waaye ma ah ñu di gërëm di leen sant man Khalil waaye yàlla ma may dafa bari gis nga déjà bot yi may sol ñu ngi koy toppandoo wato parce que il était très élégant léegi jëm na mag il est très élégant da daan afro bopp bi def ci bergamote presque xajji ko nii xale yaa ngi koy toppandoo mu nekkoon sama responsabilité dafa rëy waaye léegi su ci boolee di publicité cigarette nga gis xale bu daanul tux sax daan ne ah cigarette ayul parce que xale xalil mu ngi koy publicité gi kon nak ma ngi di gërëm di len sant xaalis neex na loolu nag bañuma xaalis wayé conséquences ci si am ci xalé yi kooku sama esprit euh, de responsable mayuma ma di len amel bu baax la gay jëlé jële million dem seen yom tur wu rafet bàyyi fi way wu rafet mo gënoon mu jëlé fi ay bakkaar doomu lolou la bëgg ñu euh, showbiz et dans le monde du spectacle et dans le milieu médiatique na ku nek xamni lay sa le bu la déssé won ñaari fan nga wuy borom sax di nga ci jot bu len des lobbies homosexuels di jël des lobbies maçonniques wala d'autres lobbies yu bëgg utiliser seen notoriété pour yak suñu jeunesse bu len ko nangou parce que fo len toll yene a nga wax yi wey nous sommes un pays libre indépendant souverain souveraineté mo ngi commencer ci gëm sa bop gëm la nga doon gëm sa cosaan gëm say valeur voilà kon euh, exemple Khalil Gueye bobu waxon nako wal Walfadjri waxaton nako 2S du ma tay à chaque plateau ndax mënu ko waxal bopam diko répéter xalé yi ndax ñu xamné valeur amna batay ay nit yu am jom de grand patriotes yu bëgg seen réew mu gën leen alal am na ba tey kon Khalil yàlla na yàlla guddal sa fan